Cheikh Sadibou Ndiaye ñu ngi leen nuyu. waaw maa ngi leen di fay. waaw yow spécialiste nga en relation internationale. Euh, ñu dooree rek ak euh, armée malienne jamono ji nag ni ki démb wax na ni na mujj naa déjoué ab attaque bu yees bi nga xam ne ñu ngi ko doon tekk ci camp militaire euh, diggante ñaari dëkk yooyu ñaari fan rek gannaaw ba ñu amalee ab attaque suicide bi nga xam ne moo visé diwaan bu garnison nekk ca kat yi ca buntu capitale Bamako tey Euh, avenir Mali lendemain Mali lan lañ ci mën a xaarandi. waaw lendemain Mali dafa di lendemain boo xam ne mën naa ni daf ñu concerné ñun état yu nekk surtout Afrique de l'Ouest yëpp notamment ñun Sénégal parce que Mali dafa di dëkk boo xam ne dafa stratégique te lépp lu xew Mali dafay laal suñu dëkk yi yëpp man loolu dafa di position bu ma yàgg donc lépp lu xew Mali dañ sa am part de responsabilité moo tax avenir u Mali ñun ñëpp ñoo war a booloo jàppale leen donc boo leen gisee attaques yi fa am fan yi loolu lépp day wane ni menace terroriste bi lu sérieuse terroristes yooyu xam nañ ni ña ngay jóge ca nord ba yor ay armes ñëw uniquement pour déstabiliser régime malien parce que attaque bi boo leen ko xoolee dafa di attaque bu ciblée camp ba ñu a Assimi Goïta fa lay nekk wala yenn éléments yu important yu Assimi Goïta fa la nekk donc ça veut dire tout simplement que le régime Goïta dérange parce que xam nañ ni le régime Goïta dafa adopté après les assises de la refondation transition boo xam ne dina permettre xëy na Mali unité peuple malien bi ñu tombé ci d' ba pare bañ a parce que xam nañ ni am na ay dëkk yoo xam ne seen mbébét mooy ñu séddale Mali def ko Mali mu état unitaire boo xam ne euh, état central bi moo mën a exploiter ressources yooyu jagleel ko Mali moo tax li xew Mali dafa di loo xam ne lu dangereux la lu metti la mais aussi lu stratégique donc attaques yi fa am dafa di attaques yoo xam ne jaaduwul mais gis nañu gouvernement bi nga xam ne moo nekk en place te Choguel Maïga di ko jiite moo ngi mëne vraiment ay combats yoo xam ne ñoo ngi ciy am ay victoire surtout dans le nord ndax euh, boo seetloo armée malienne zone yu bëri ñëwaat na fa dellu si waat na fa te avant contrôlé wul woon pratiquement territoire bi yëpp malgré que ba tey des na mais ñoo gis ñoo ngi repoussé euh, terroristes yooyu di nanguwaat ay zone avec l'aide je dirais de de yooyu nga xam ne ñi xëy na Russie lañ jugee ak ñeneen ñoo xam ne matériel militaire boo xam ne yeneen dëkk ñoom la kenn koy jagleel ñu mel ne Chine ak donc pour wane ni rek Mali lii ñu nekk bu dee gëm nañ ko bu ne gëm nañ ni ñoom mën nañ changer seen réew gëm naa ni position bi ñu adopté position bu baax la ndax li tax mu baax mooy dëkk bi ñëpp àndandoo ànd ak régime bi nga xam ne actuellement ñoo fa nekk parce que li bon mooy nga def coup d'état ba pare askan kenn euh, dagana lañu coup d'état de ànduñu ci mais ñun li ñu xaw a jaaxal mooy askanu Mali peuple malien bi dafa mel ne ñoom dañu wóoru gën seen dirigeants yi fa toog moo tax dañ leen jox nopp jox leen bopp ba lu ñu def jégleel ko ci lutte contre euh, terroristes yi ñoom dañ naan loolu dañ koy rafetlu te ñoom dañ naan loolu lu baax donc ñun bu ñuy analyser mënuñu ni dañoo faral régime malien wala dañoo faral diw mais dañ naan ci régime malien bi mu nekk di mëne population bi tant que ñu ngi seen bopp donc loo xam ne lu ñuy saluer la. te loolu day permettre bu Mali demee ba nekk état bu dëgëraat am sécurité ñu mën a convoquer ay élection yu leer yu set delloo pouvoir civil yi parce que loolu mooy li nga xam ne CEDEAO moom la santaane moom la Union africaine santaane te ñoom xam nañ ko sanction yi ñu tegoon gisoon nañ ni doxul te boo seetloo sanction yooyu dañu bëggoon pousser euh, peuple malien bi ñu contre régime bi maanaam xeexal moom daaneel ko parce que sanction yooyu doon étouffer Mali économiquement mais ñu gis ni nañ ni daal depuis loolu attaque terroriste yi ñoo ngi koy gis tentative de coup d'état yooyu yëpp ñoo gis ni doxul mm. donc te xam nañ ni am na puissance xëy na yoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw nit ñooñu parce que actuellement li régime bi di mëne arrangé wu leen du seen ngëneel du seen nit donc moo tax ñuy ñaan yalla daal Mali na jàmm dellu ci waat salaam dellu ci fa parce que lépp lu xew Mali dina impacté suñu réew yi. d'accord euh, jóge Mali dem ca Cameroun ak euh, Bénin ak yeneen i gox fii ci Afrique euh, jamono ji mhm. président bu France Emmanuel Macron mu ngi amal ab visite lan nga jàpp ni moo motiver déplacement am yooyu. waaw déplacement Macron bi bi mooy déplacement bi njëkk Afrique gannaaw bañ ko falaatee président France te déplacement bi liñ ci mën a jàng dafa bëgg ndax déplacement bi dafay ñëw ngir waxtaanee sécurité ak paix maanaam jàmm. mais tamit euh, di waxtaanee ci crise alimentaire yoo xam ne moom na euh, pratiquement touché Afrique ak coopération bi war a am diggante France ak Afrique li tax mu ñëw fi di waxtaanee sécurité te gis nga ni suñu dëkk yi bi bi gannaaw bi Barkhane jugee Mali dem Niger yooyu gis na ni menace terroriste yi dafa nekk di menacer pays africain yi donc waxtaan yooyu la indi woon tournée boobu la doon def si pratiquement ci pays africain yi ngir ñu xool nan la ñuy mënaatee tëggaat coopération boo xam ne ci wàllum sécurité ci wàllum paix mais tamit euh, déplacement bi li tax mu gën a ñëw waxtaanee si insécurité alimentaire la ndax ñu ngi crise ba nga xam ne moo Ukraine ak diggante Ukraine bi si pays africain yi dafa leen frappé de plein fouet ndax gis nañ manifestation yi am ci yenn réew yi augmentation prix yi yooyu yëpp nag dañuy waxtaanee fu ñu xool yi

ba dafa bokk léegi ci réew yi nga xam ne dañoo yor euh, genn wàll suñu économie yu bëri fii ci pays africain te lool arrangé wu intérêt France loolu nag si li gën a indi Emmanuel Macron la ndax dañu amoon ñoom président bu wax na dëkk amul xarit dëkk ay intérêt rek lay lay défendre donc ñëwu France yi en Afrique uniquement surtout pour défendre ay intérêt gën a repositionné waat ay multinationales am ak ay pion mais tamit loolu dafa war am jàngat bi chef d'état africain yi parce que chef d'état africain war toll foo xam ne war nañ teg ay politique yu sérieuses yoo xam ne suñu dëkk yi dootuñu dépendre ci benn dëkk ni économiquement ni sur le plan de la sécurité alimentaire ndax dëkk Euh, li ñu woowee développement mooy maanaam ku xiif mu ne la bëgg faju dem faju loolu c'est les secteurs primaires donc dëkk bu sérieux dafa war a dafa war a vaincre euh, feebar yooyu noonu te alors que dañuy gis ni suñ koy accident ba tey feebar yooyu vaincre wuñ leen sonal nañu donc looloo waral ndóol gi di fi yokku crise bu amee fenn day répercuté wu suñu pays ndax ba tey économiquement euh, on est dépendant on est toujours dépendant dans plusieurs secteurs secteur industriel pratiquement amul Afrique donc économiquement l'Afrique pèse pratiquement rien de l'économie mondiale alors que ñooy continent bi ëpp ressources dans le monde pratiquement lépp lu ñuy wax ci ressources yi am na fi mais boo seetloo euh, jusqu'à présent pauvreté bu grandissante moo fi am mal vivre euh, manque de euh, maa maanaam liggéey amul fi ndax jeunes yi gis nañu ci biir amuñu liggéey donc yooyu yëpp dafa di secteur yoo xam ne il est temps que le chef d'État jël seen responsabilité par rapport à cela donc visite Macron bi daal dans sa globalité yooyu ko indi Afrique ñëw défendre tout simplement les intérêts de son pays repositionné dëppal waxtaan ak waxum sécurité euh, surtout wàllum lié au terrorisme mais tamit euh, gën a placer la France euh, dans dans les dans africaines d' accord ñu wax ci guerre bi diggante Russie ak euh, Ukraine tey Russie jot na bombardé port ukrainien bu tudd Odessa euh, samedi bi ñu génn euh, gannaaw ba mu signé ab accord boo xam ne ñeel na exploitation céréale te te ci boobule port nekk ca mer Noire fi nga xam ne blé bi nga xam ne askan wi moom la yaakaar foofu la war a jaar ngir ñu éviter ab crise alimentaire tey Russie bu sible ciblé Odessa ndax nekkul di porter atteinte ci confiance bi nga xam ne moom lañ tegoon ci boobule. accord waaw accord bi diggante si Ukraine Turquie ak euh, ONU xamoon nañ ni accord yu fragile lay doon parce que euh, Poutine li mu bëgg ma ni Ukraine dafa di loo xam ne dafa commencé leer ci bopp nit ñi xëy na dafa bëgg attaqué dëkk yu bëri euh, à la Russie ni mu defee woon ak la Crimée donc xamoon ni accord yu fragile la donc te li jublu woon si accord yooyu moo doon permettre plus de vingt cinq millions de tonnes de céréales ñu mën a transiter dem vers les pays pauvres te accord yooyu ñi ko garanti woon pratiquement Turquie la ak euh, Antonio Guterres maanaam ONU te Turquie sax mën moo doon contrôler pratiquement bato yooyu bu ñëwee ba Bosphore ñoom ñoo la doon contrôler xool ndax dañu transit ci tamit ay armes pour yóbbu ko Ukraine donc accord la woon yoo xam ne accord yu baax la woon parce que noonu la permettre adduna bi ñu euh, kii ñu alimentaire moo tax ñu ñaan yàlla accord yi bañ a rompre parce que ñu gisee si bombardé de de sax tey mën na tax partie ukrainienne bi sax xëy na mu euh, gerte wala lu ci tax tamit rompre accord yi bañ céréale boobu génn donc pour wane ne rek euh, malgré accord yooyu gis nañ ni daal ñaari dëkk yi ba tey confiance amul seen diggante te gis nañ ni tamit euh, pays pour yi ñu dépendre ci céréale ukrainien ak dafa jéggi dayoo ndax gis nañ ni àdduna bi actuellement crise alimentaire bu mag moo ko menacé euh, te loolu sax gisoon ngeen li koy symboliser maanaam le président en exercice de l'Union africaine monsieur président de la République Macky Sall woon na dem ba ñu fekk euh, Vladimir Poutine waxtaan ak moom ci wàllum la ñuy def tout ba lever blocus boobu pour permettre céréales yàlla jàll mais loolu tam lecture bi ci war a am mooy est-ce que tamit ñun pays africain suñu jiiñ lii ñu jël seen ay responsabilité mu ñu ay politique yu sérieux yoo xam ne ci wàllum domaine agricole la ak domaine industriel parce que mënuma comprendre ñun suñu pays ñu am ay ressources am am naaj bi am ay terre am ndox te mënuñu bay loolu doxalin loo xam ne du yoon politique industrielle même chose industrie amul accès pratiquement donc loolu du yoon dëkk bu mel ni Sénégal UCS ni day defar pratiquement ay euh, day defar produit yoo xam ne urée day dem ci wàllum bay donc dafa di yoon suñu dëkk yi da ci dëkk yu mel ni ay Ukraine ak Russie ci lu mel ni lu mel ni ci ay céréales ak matières premières yoo xam ne day dem ci mbay Hmm. donc loolu dafa poussé à nos chefs d'État ñu xalaataat xam ni avenir u Afrique ñoom africains yi ñoo ko yor du keneen ko ñun ñoo war a jël suñu responsable si doxal politique yoo xam ne dina permettre su dëkk yi xëy na mu changé mais bëggul ñuy dem di commandé ji ay levée de sanction rek ak problème yoo xam ne xëy na buñ doxaloon yoon ñu doxal dëgg ci wàllum crise alimentaire euh, ci wàllum euh, mbay ak ak euh, industrie dëkki na suñu ñu am crise alimentaire bu ñu dépendre ci céréales Russie nag Poutine moom loolu la comprendre xam ni bu mettee mettre la pression sur les pays occidentaux maanaam fermer robinet wu gaz bi yeneen dëkk yi mu bloqué céréale bi hmm. bu nekk ci monde bi moom loolu la comprendre moo tax muy appuyer ci secteur yooyu hmm. te loolu nag ñun tamit il est temps que ni ko defar suñu réew mi mën nañ ko fi defar ba ñu financer une agricole ak une bonne politique industrielle donc loolu yaakaar naa ni accord yooyu gannaaw bu ñu waxee ci pays africain yi xam nañ ni accord bu fragile lay doon xam nañ ni accord la yoo xam ne xëy na vraiment ñoo ngi ñaan yàlla nag waaye wax dëgg yàlla jàmm dellu si waat ak accord yooyu ñu mën koy respecté pour le moment mais tamit ñu nañ xool yeneen alternative yi ñu mën a teg parce que nit yi ñun dañ ko sanctionné moom mhm. mais teewul sanction yooyu moom moo ay voies de dem na ba léegi sanction yi dafa ko donc ñun tam il est ñu tey euh, yaa ngi koy wax sànq say kàddu président Macky Sall demoon na euh, gis yi Vladimir Poutine ca euh, Russie tey bu dee même sax ñu ngi xel mu ngi koy laam-laamee bu dee tey wàññi nañ njëguma céréale bi est-ce que mun nañ wax ni intervention président Union africaine di président Macky Sall moo ko waral un président union africaine di son exemple mm-hmm. le président Macky Sall mm-hmm. dafa di intervention bu ñuy rafetlu ndax wax dëgg yàlla def na wëlam wël joué na ci agendaawam ñu dem wax ak euh, Poutine ak Zelensky ñu xool nu ñuy def ba yëkkati sanction yooyu mm-hmm. ndax pays africain bu bëgg la ñu dépendre ci céréales yooyu donc doxina doxin bu rafet la ci def mais accord yooyu daf ko bañ ba dañ ni Poutine accord yooyu bi mu ci tombé d' accord ñu ngi si tombeel d' accord ñan la moo di Erdogan président wu Turquie ak Antonio Guterres bu mooy secrétaire général des Nations Unies donc ñooñu dafa di ñoo xam ne ñoo posé tous les les poids pour ñu signer accord malgré que intervention bu président analyse bi ñu am intervention bu ñuy rafetlu la ndax intervention bu am sens la ndax wane ni moo ñu mën ay bataille diplomatique pour pays africain yi mën vraiment wane seen bopp ci àdduna bi mais loolu tamit beneen lecture bi ñu ci war président union africaine tamit war na intervenir pays africain ñu xool plan bu ñuy teg plan sérieux boo xam ne lu ñuy mëne suñu ay produits agricoles yu normal au lieu que ñuy jéem dem commandé blé ak céréale jàmbur nañ consommé suñuy blé suñu céréale bàyyee ko suñu dëkk donc président union africaine na boole si agenda woon maanaam plan bu mel noonu xool nu muy waxtaanee ak chef d'état moom ñu tëral seen plan africain boo xam ne endogène boo xam ne dañuy mën ay politique yoo xam ne daf ñuy permettre dootuñu dépendre benn dëkk parce que boo demee lu mel ni Éthiopie day bay céréales yu bëri day bay blé. ñeneen mhm. dëkk fii di bay blé donc mën nañu xool lu ñuy def tout ba di transiter entre nous euh, ba di favoriser la coopération entre pays africains ba du ñu am problème céréales loolu lu a nekk la ñoom xam nañ ko donc ñu ngi ñuy dépendre si guerre jàmbur boo xam ne pratiquement concerné wu ñu mhm. donc euh, loolu moom malgré ça dañuy saluer tamit position président union africaine ndax na si le tout son poids mais li ñu mën a wax daal mooy président Erdogan dox na si tànk yoo xam moom mooy surveiller dëkk mooy surveiller sax bateau yi nga xam ne ñooy transiter yor céréales yooyu loolu nag beneen lecture bi ñu ci war a am mooy il faut que africains yi ñu comprendre a ni léegi àdduna bi dafa am beneen lecture beneen phénomène bu am ci wàllum géopolitique gis nga état yi dañuy jël seen responsabilité seen wàllum souveraineté dootuñu benn bande wu cinq pays xam ne ñooy toog conseil de sécurité ñooy toog di décider dëkk sàngam lan ak lan moo ko xew phénomène de Shanghai wane na ko BRICS wane na ko ak yeneen ak yeneen sanction yi am contribution sax wane ko ndax am na dëkk yoo xam ne ñoom sanctionné wu kon du kenn moo leen di donc loolu dafa war a ni ñun il est temps que ñu jël suñu responsabilité ci mm-hmm. xam ni monde bi dafa nekk di changer te il est temps que ñu jël suñu ay ba changement boobu ñu ci bàyyi ginnaaw ndax gis ñu beneen étape amee ñun dañu nar a gën a tardé dañu nar a bañ a bokk nga xam ne ñoo ci àdduna bi ndax ñëpp gis nañu Sénégal gaz ak pétrole ñoo ngi ciy génne ak yeneen ak yeneen loolu loo xam ne mën nañu ñu peser de tout notre poids de manière diplomatique pour mën a intervenir le plus dans le monde euh, en Afrique. Euh, ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi voilà di fàtte spécialiste nga en relation internationale.